waaw waaw mooy suñu mooy suñu yaay quoi suñu yaay suñu yaay yaay. mu doon match bu difficile boo xamante ne si xam nga ñun Gazelle lañ soqee ko quoi match moo tax match derby la quoi te rafet nañ jot quoi te ñun fi ñu dem jaar ak ñoom dañuy jaar ak ñoom doon dañoo mujjoon suñu kaw. mais tey moom wax naa du yomb quoi c'est la première fois ñu nekk président ñoo ngi ñaan képp koo xam ne mu ngi seetaan vidéo bi nga defal ñu ay ñaan tamit ay ndaw lañu. jug pour yóbbu équipe foo xam ne fu sori quoi ASC Dieg Penc fa lañ dëkk xamuñu fenn fu dul Penc moom la ñu tiitaroo quoi di ñaan yàlla te match bi nag ñu génn si ak ndam sedd guy quoi sans vie. bon fekk nekk na benn ñu nekk si koñ bi ñu nekk ci quartier bi di def loo xam ne amuñu fenn sens interdit pourquoi pas parce que tamit ay nit la responsable nekk si yeneen foo xam ne nekk ci yeneen côté yoo xam ne ay responsable lañu pourquoi pas ñëw jël équipe bi bon ah. jël ko tamit ak noo xamante ni ibbi ko ñëpp ñëw fekk ASC bi ASC ñëpp la kenn ku ko moom ñu ibbi ko yaatal ko te loolu mooy suñu objectif quoi yaatal ko yaatal ko ba képp koo xamante ni si ah jég pej nga dëkk même suuf dëkkoon tuxu sax dañ lay jiliwaat nga ñëw non di ñaan zone une moom ah dañuy wax yàlla defal ñu jàmm quoi te li ñu li ñu li ñu bàkkee yàlla yàlla noonu ko ak yeneen zone yëpp ah, ñu tam xam ne kaf ak foo ak ree la dëkkandoo la yow zeng nga dëkk man jég peñ ñuy gasel di ko damay romb gasel ñu naan bu fa jaar di fekk man sama góor a fa lañ dëkk affaire bi ambiance la ñu foo boo xamante ni rek pour ñu naangi ñëpp ñoo après nawetaan ñooy roofandoo di àndandoo dem doxi leneen leneen yow yaa ngi nii dama ñëw seen koñ dafa fréquente kon boog affaire dafa war a rafet quoi di ñaan ñëpp dañu delloo si temporaire ñu teey ànd xam ne tam football kaf ak foo ak ree règlement li ko Youssou Ndour waxee merci beaucoup